benn saraxeem boobee rek fekk dee yu ñaaw yu bari yooyu le dañuy wax nag ne bu dee saraxe boo xam ne yaa ko coobarewu ngir yàlla nga làq ko moo gën nga fésal ko bu dee nag asaka nga xam ne farata la moom su fekkee ne boo ko feeñalee ragaloo ca gis sa bopp ba dara kon nga fésal ko mooy gën ndax ku ko fàtte woon daal di koy fàttaliku génne asaka koo xam ne sawaru ca woon roy la ba sawar ca ni alquran waxee ne in tubdu sadaqaati fa ni'maa hi wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa xayrun lakum wa nukaffir ankum min sayi'aatikum wa qaala sallallahu alayhi wa sallam baakiroo na di teele bi sadaqati ci sadaxe fa inal balaa naka balaa laa yataxattaa du jéggi as sadaqata sarax addis ba nee woon dee leen teele saraxe ndax balaa bu dee dikk fekk ngeen saraxe sarax saa koy téye ba du mën a jéggi sarax sa moom balaa ba dal ci kaw kenn wa qaala salaam daawoo na ngeen di faje mardaakum seen way tawat bi sadaqat ci saraxe ay aiddu a ngeen di xaroo al a bala bi duxaay ci ñaan addis ba ne bu ngeen tawatee mbaa ngeen am ko tawat na ngeen di saraxe ndax yàlla faj leen faj ñu ngeen amee tañ tawat ba tey bu ngeen bëggee yàlla musal leen ci balaa dee leen waajal balaa balaa dikk te waajal gi mooy rek ñaan yàlla ndax yàlla boo ko ñaanee mën na laa may balaa ba doon ñëw rek bañ a agsi kon ñaan moom itam mooy ngànnaayal jullit wa qaala alayhi salaam ida aznabta ndeem bakkaaru nga zamban bakkaar fa xajjil na nga gaawe fii isrihi ci saawoom sa ñu xoolaat ba xam dafa nekk fii isrihi wala fii asarihi sadaqatan sarax qabla an tanassala ci njëkk muy wàcc boo jàngee qabla an tanassala kon mi ngi bàyyi ko woon ci xabla an la ñu dagg benn taaba bari nañ koo def wala nga jàng xabla an tanzila ci kaw rekk na nga xool addis ba na mu fa dikkee xale nga ci yow fuqoo batum bugal addis ba na soo yëgee ni def nga bakkaar dalal di gaaw rek saraxe balaa bugalum bakkaar ba wàcc sa kaw boo defee bakkaar boo gaawee saraxe yàlla mën naa def rax see tax mbugal nga jëm si woon ci ngir bàkkaar ba yàlla delloo ko bañ la koo teg qaala alayhi salaam ida nasalat ndem wàcc na ilaykum jëm ci yéen a ab gàkk ne samaay tukkee ci asamaan suy fat kon wëlbateef ko ñu xoolaat ba xam dafa nekk xan ximaaratil masaajidi wala boog xan xummaaril masaajidi walis way dundal jàkka ya xan xummaaril masaajidi walis way dundal jàkk ya addis bi nee na bu yàlla dee wàccee aw ay wu bàyyi ko ci asamaan du ca boole ñay dundal jàkk ya mooy ñi nekk ci jàkka ya di ca jaamu yàlla di ko defaraat aka setal aka nemmiku di fa def la ca war wa qaala alayhi salaam sittu majaalisa juróom benni jataay yii maakaana nekkut almuslimu ab julit fii majlisin ci ab jataay min ci ñoom illaa kaan mu nekk daaminan di aji gàddu alallahi war yàlla fekk yàlla warlu rekk waaye yàlla moom dara waru ko taala kawe na ay li ci namm xoo moom fi riayatillaahi nekk na ci sàmmug yàlla wa damaanihi akuk gàddoom awwaluha aji jëkk seen alxaazi moo di aji xare ji fi sabilillahi ci yoonu yàlla aw fi masjidi jamaahatin wala ci jàkkay mbooloo aw xinda maridin wala fa aji tawat aw taabihi janaasatin wala aji topp ak tàdd boo defee nag aw taabihin wala aji topp janaasatan ak tàdd aw fii baytihi wala ci ab néegam aw xinda imaamin wala fa ilimaan muq sitin bi aji maando bi nee na juróom benn jataay yii fu fa ab julit nekk ci ñoom yàlla warlu sàmm ko aar ko ba ci jëkk mooy jullit bi nekk ci toolub xare bëgg a yëkkati lislaam yàllaa koy sàmm aar ko su fekkee nag ab digam daa jeex yàlla jël bakkanam ca xare ba itam mu daal di am darajay shahaada bokk ci ñañ rey ci yoonu yàlla bokk ci ñu ëpp li ngërëm ak ajana ñaareel ba mooy jàkkay mbooloo mooy jàkka joo xam ne ñépp ca saña dem boo xam ne danga nekk ci jàkka yaa ngi ci béréb boo xam ne yàlla moo warlu sak aar ak sak sàmm ak boo demee fi ab jullit bu tawat toog fa moom ku toog fi mbokkum jullitam mu tawat na ko wóor ne yàllaa koy aar sàmm ko li fee ma foofa ak ku nekk fi ab néew li ko gunge mbaa mu koy toppatoo na ko wóor ne yàllaa koy aar di ko sàmm ba ba muy noppi ca loola ak mbokkum jullit faatu mu dem ca këram toog fa di defal waa kër ga di leen dimbale ngir yàlla loola it na ko wóor ne li fekk ma nga fa rek yàllaa koy aar yàllaa koy sàmm ak ka yàlla jiital mu jiite mbooloo mi tam nekk ko maandu aw ñoom ci yoonu yàlla saa yoo nekkee fa moom rek xamal ne kon yaa ngi ci béréb boo xam ne yàlla lay aar sàmm la ba ba nga fay jóge wa man xara aku jàng ba'da salaatil ci gannaaw jullit jumaa waxu te fekk na moom taanin aji lem la rij lay ñaari tànkam ña qabla an yatakallama ci njëkk muy wax alfatihata fatiha wal ixlaasa ak ixlaas wal muhawwidatayni ak ñaari xul a'uuzu yi sabaxan sabaxan juróom-ñaar ci gannaaw juróom-ñaar aha zaxoo kon musal ko allahu yàlla mina suu'i ci lépp lu bon minal jumuhati tàmbalee ci ajjuma ja ilal jumuhati ba ci ajjuma ja al uxraa ci des fi fii nafsihi ci boppam wa maalihi ak alalam wa waladihi ak doomam nee na boo julee ajjuma ba sëlmal laata ngay benkar ci say tànk nga jàng faatiha juróom-yaari yoon jàng xul huwallaahu juróom-ñaari yoon jàng faalaxeek naas yi juróom-ñaari yoon yàlla musal la ci lépp lu aay lépp lu bon la dalee ci ajjuma joojee ba ajjuma dellu si lu bon du la jege ci sa bopp mbaa sa alal mbaa sa doom wal yaqul na wax ida asbaha ndéem xëy na wa am saa ak ndéem gont na ni xasbiyallahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul xarshil azim sabaxa marratin juróom-yaari yoon nee saa yoo xëyee fexeel ba wax xasbiyallahu jooju juróom-yaari yoon bu ngoonee itam nga wax ko juróom-yaari yoon moom nag lu ñu fonk fonk la wax ne ne saa yoo ko xëyee wax mbaa nga gont ko wax rek faw yàlla fegal la lépp loo xam ne moo doon sa yitte ju la jaaxaloon faw yàlla taxawu la ca ba sag jaaxle dañ ak yitte ju mën di doon moo xam bi nga koy wax xam nga li baat bi tekki te fas ko ci sa xol wala sax xamoo ko mbaa xam nga ko waaye teewlu woo ko du tee rekk ñu defal la loolu nee nañu way yaqul na wax ne bismillahi baa ngi tàmbalee turu yàlla ëllësi yàlla mi nga xam ne laa yadurru du ma asmihi ànd ak turam dara fil ard ci suuf wala fi samaay du jaageenu ci asamaan wa huwa te yàlla wa huwa as-samihu mooy aji dégg ja alxalimu kay aji xam talaasa marraat ñetti yoon la koy wax ba tey nee na subaa ngoon na wax bismillahi allazi laa yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fi samaa wa huwa as-samiul xalim ñetti yoon moom itam baatu musluwaay la bu màgg a màgg bu ñu fonk-fonk wal yaqra te na jàng al ixlaasa saarul ixlaas wal mu xaw wi ni ak ñaari xul ahons yi salaasa marraat ñetti yoon kulla masaayin ci gépp ngoon war sabaahin ak gépp suba fexeel ba suba ngoon gu ne na nga jàng qul huwallaahu yetti yoon jàng fàllaxig naasi kenn ku ne yetti yoon wal yati na dikke itam bi duxaay abi darrin ci ñaanuk abi dar radiallahu anhu awala nahaari ci njëlbeenu bëccëg ba wa axirahu ak ci mujjam ga wa huwa moom moo subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al azim rabbi sama yow buur anta yow rabbi yaay sama boroom laa ilaha amul benn buur illaa anta ndara yow xaleyka ci tawakkaltu laay wakkiilu wa anta te yow rabbul xarshi yaay boroom xaras alazimi aras amul benn buur illallahu ndare yàlla alali kay aji kawe alazimu kay aji màgg macha lu soob allahu yàlla kaana mu am wa ma lam yacha loo xam ne soobu ko lam yakun du am wala xawla amul benn xeetu fexe buy teemooy wala quwwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi ndare muy nekk ci yàlla al alimi aji kawe al xam ni an allah naka yàlla qadirun aji attan la ala kulli shay'in ci mépp mbir wa an allah ak naka yàlla yabxatu dana dekkal man ña nga xam ne fil xubóori nekk nañ ca bàmmeel ya wa an allah ak naka yàlla xadd axaata peeg na bi kulli shay'in ci mépp mbir xilman ci xam allahumma yow buur bi indi naka man ahudu danaa musli bi ko ci yow min sharri nafsi ci ayu sama bakkan wa min sharri kulli daabatin ak ci ayu jépp daaba rabbi joo xam ne daa sama boroom anta yow aaxitun yaa aji jàpp bi naasiyatiha ci kawaru jubbam nga wala ci cembaanam ga waaye mooy kawaru jubbu boo ne suq kenn ci kawaru jubbu da nga koy not day mel ne foo ko fekk mu jëm fa day mel ne gañe ko nga jublu rek jépp daaba ju mën doon yàllaa yore mbirum fu mu jëm moo ko fay jëmale inna rabbi naka sama boroom xalaa siraatin nekk na ci aw yoon mustaqimin wi aji jub nee na fexeel ba suba ngoon gu na nga jàng ñaan gi ñu wooye ñaanuk abu dhar moo tàmbalee ci subhanallahi wa bihamdihi ba ci inna rabbi ala siratin mustaqim wal yaddoxate ne ñaan bi duxaay anasin ci ñaanuk anas radiallahu anhu talaasan ñetti yoon waxuute moom mooy bismillaahi ci tur yàllaay dimmandikoo xalaa nafsi ci sama bakkan wa diini ak sama diine bismillaahi ci tur yàlla laay dimmandikoo ko sukkandikoo xalaa ahli ci sama ñoñ wa waladi ak sama doom wa maali ak sama alal bismillaahi ci tur yàlla laay dimmandikoo xalaa kulli shay'in ci mépp mbir aataanihi moom jox na ma ko rab bi sama borom allahu allahu rabbi mooy sama borom laa usriku lu ma bokkaale bii ak moom shay'an dara allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu yàlla akbaru moo gën a màgg wa azzu te moo gën a tedd wa ajallu te moo gën a màgg mimmaa li nga xam ne axaafu naa ko ragal wa ahdaru te ma koy wattandiku azza tedd na jaaru ko sa dëkkandoo wa jàll te màgg na tanaaw ko saw tagg wala ilaha amul benn buur xayruka ndara yow allahumma yow buur bi inni naka man a'udhu danaa musli bi ko ci yow min sharri nafsi ci ayu sama bakkan wa min sharri kulli shaytaan ak ayu sépp seytaane marid suy aji fetteerlu wa min sharri kulli jabbaarin ak ayu képp kuy ab notaakoon ahanidin kuy aji dëng fa in tawallaw ndeem dëddu nañu faxul neel xas bi doy na ma allahu yàlla laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim inna waliya nag aji méngoo sama mbir daal allahu mooy yàlla allasi mi nga xam ne nazala wàcce na alkitaaba téere bi wa huwa te moom yatawalla dana féetewoo assaalihiina mbiri way baax ña loolu la ñu tuddee ñaanuk anas moom itam xel ba suba ngoon nga wax ko yetti yoon mu tàmbalee ci bismillahi ala nafsi wa diini ba agsi ci inna waliyallahu alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin wal yaddahu na ñaane it bi duhaa i qadirin ci ñaanu qadir wa iliyaasin alayhima salaam talaasa ñetti yoon fii kulli masaayin ci gépp ngoon wa sabaxin ak gépp suba wa huwa moom moo di bismillahi ma sha allahu la quwwata illa billah ma sha allahu kullu ni amatin gépp xéewal rek fa minallahi mi ngi tukkee ci yàlla macha allahu alxayru yiw wa kulluhu léppam bi yadillahi nekk na ci loxol yàlla macha allahu laa yasrifu du walbati asua lu bon illallahu ndara yàlla subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyil azim wal yaqra tane jàng ayatal kursi yi ayay kursi wa suurata duxaani ak saaru duxaan wa awwala xaamim al mu'min ak njëlbeenuk xaamim biñ miine suuratul xaafir lu jëm ci al mu'min ilaa xawlihi ba ci waxam ji al masir sabaaxan ci suba wa masaan ak ci ngoon ñaanuk xadir gi Ilias yetti yoon lañu koy jàng te itam suba ngoon lay doon ba tey mi ngi lay wax rek yi nga xam ne danga koy def ndax yàlla musal la ci xeeti musiba yi wàcc nga xam ne duñu la dal mbaa buñ la dalee itam wayaf tooy bokk na ca nag kon bu ne suba ngoon nga jàng ayatul kursi yi ak sóoratu duxaan ak njëlbeenu suuratu xaafir ba ca almasir loolu nag guddut ndax boo nee xaamiim tanzilul kitaabi min allaahil asiisil aliim xaafiri dambi wa qaabili tawbi shadidil xiqaabi di tawl laa ilaha illa hu ilayhil masir foofu la yam suba ngoon gu def loolu ba tey bal yaqra te na jàng xindabti daayi kulli xawlin fa tàmbali jëpp wax waxamalin ak jëpp jëf bismillahi rahmaani rahim wa fa noppeem nga na jàng alhamdulillahi rabbil alamin wa ita qaala bu waxee afaal danaa def kaza aw aqulu mbaa wax kaza nangam fal yaqul na wax ne insha allahu ndem soob na yàlla wa ida staxsana ragal xale yi ci moom fal yaqul na wax ne macha allahu lu soob yàlla rek day am laa quwwata amul benn xeetu kàttan illaa billaah ndare mi nekk ci yàlla ni allahumma yow buur bi baarik yàlla nga barkeel lii ñeel ma fii ci moom xasantuhu sañeele naa ko maanaam aare naa ko bil xay yi ci yàlla mi aji dund alqayyoomi ki dib taxawakatub lépp mooy lépp ci moom la wéeru te mu wéeruwul ci kenn allësi ki nga xam ne laa yamootu du dee wa dafaatu te jiñ an walis ko asu a lépp lu bon bila xawla wala quwata illa billahil aliyul azimi ci la xawla wala quwata banam daanoo jëpp wax jooy bëgg a tàmbali ak jëpp jëf jooy bëgg tàmbali na nga wax bismillahi rahmaani rahim te boo noppee itam nga wax alhamdulillahi rabbil alamin boo nee danaa def nangam mbaa danaa wax nangam itam boole ca incha allah bu soobee yàlla soo amee loo xam ne sa xol sedd na ca te tiit mu tàggoo yow mbaa dara sikki ja dal di wax rek macha allahu la quwata illa billah boo ko waxee rek doo ci gis lu naqari ca nagu addis boo waxee fii nag moom dane boo waxee macha allahu la quwata illa billah da ngay cay dolli allahumma barik lii fiihi ba ci bila hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wal yaqul na wax ida macha ndéem dox na aw nasala mbaam wàcc man si leen ci benn wàccukaay ne ahodu danaa musloo bi kalimaatillaahi ci baati yàlla yi attaamaati yee di way mat min sharri ma ci ayu lépp li nga xam ne xalaqa bind na ko moom yàlla talaasa marratin yetti yoon ba tey na nga farlu ci boo jógee di dem mbaa nga àgg ci béréb bëgg fa wàcc toog fa farlu ci wax ne ahodu bi kalimatillahi taamaati min charri ma wax ko yetti yoon daa bokk ci xeeti muslukaay yi nga xamee ne yu ñu fonk lool la wal yaqul na wax xindal fa booloo ga fa jote gaag ka muy séel bismillaahi maa ngi tàmbalee turu yàlla allahumma yow buur bi jannib naa yàlla na nga nu sorilal ak seytaana seytaane wa jannib te nga sorilal ak seytaana seytaane maa li nga xam ne rasaqta naa wërsëgale nga nu ko fa innahu naka moom day in rasaqahu ndéem wërsëgale na ko allahu yàlla minhu ci googee bu dee ci jigéen ji nag moom muy minha wala dan doom laa yadur raxoo du ko lor boo ko jasamee muy jawaab bi des na ko rafaa itam léeg-léeg laa yadur du ko lor ak seytaanu seytaani abadan mukk nee na kuy bëgg a joteeg muy séyal na wax bismillahi allahumma jannibna seytaana wa jannibi seytaana maa rasaqtanaa yàlla sori loolu nu te doon wërsëgali doom ci jote gi itam nga sorilal ko seetaane mucc ja loolu ko wax ca ba muy jote bu ko ci yàlla mayee doom doom ja seetaan du ko mënal dara dara wa isa wulida ndeem juréef na lëxoo ko wala dun doom fa azana te mu noddu fii udunihi ci noppam ba alyum naa bay ndeyjoor wa aqaama te ca noppam ba al càmmooñ laa tadurruhu du ko lor ummu sibiyaani rabu aay saayu jigéen muccee am doom ñu daldi nodd ca noppum ndey jooru doom ja liqaam ca noppum càmmooñ ba xale boobee lu yàgg-yàgg rab wu aay wala nga ne àndandoo ju aay du ko lor mukk-mukk loolu nag mel na ne fàtte moo ci am rekk waaye lu yomb yomb la te am njariñ lool lool ba xale bay door a daal ku fa nekk muy góor muy jigéen su xamee ni ñi nodde ak nit ñi liqaame mu fexe ba nodd ca noppub ndeyjooru liir ba liqaam ca noppub càmmooñ ba xale boobee lu yàgg-yàgg rab wu aay wala àndandoo ju aay du ko lor mukk-mukk wa ida araada ndem bëgg na an naw ma nelaw fal na jàng ayatal kursi yi ayatal kursi wa aaxiral baqarati ak mujug baqara wa talaas ayat ak yetti laaya minal araaf ci saarul araaf te mooy inna rabbakumullahu inna rabbakumullahu illal muhsiniina ba ca muhsiniin ja wala xadd jaakum rasulun ak la xadd jaakum rasulun ila axiri tawbati ba ca mujjug saaru tawba wa axiril xashri ak mujjug suratul xashri wal faatixat ak faatixa wal ixlaas ak lixlaas wal muxawidatayni ak yaari qul ahanse yi soo bëgga tëdd nee na na nga jàng kursi yu ak mujug baqara mooy amana rasulu ba fa saarwayam ak yetti laaye ci laxaraaf tàmbalee inna rabbakumullaahu ba ca inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin teg ca laqad jaakum rasulun ba ca mujjug saarwa teg ca mu mujjug suratul xasri mooy law ansalna haadal quraan xalaa jabalin joojee teg nag faatiha ak lixlaas ak fàllax naasi wa mimma bokk na ci la nga xam ne yàdd fa dana jiiñ alhamma njàqare wala ñagg-ñaggi xol wal xasana ak njàqare nazaafatu thiyaabi setug ay yére wa nazaafatul mansili ak setug kër wa xalmul adfaari ak lewi ay yow yowmal jumuhat ci bisu ajjuma wa nadaru ak xool ilal mushafi jëm ci ab kaamil wa ilaa wujuhi saalihiina ak jëm ci kanam yi way baax ña soo bëggee nag yàlla musal la ci ñagg-ñaggi xol ak naqaru xol xamal ne kon yi muy bëgg a ci lañu bokk na nga sàmmoonteeg ñoom bu baax a baax bokk na ci may yooyu ngay sol yére yu set maanaam yére yu amul sobe sa yére di set sa kër ak sa néeg yépp set bokk na ci li taxa mucc ci ñakki-ñakki xol ak njàqare ba tey di lewik say wex ci bisu àjjuma ma ko ci bisu àjjuma bokk na ci taxa mucc ci ñagg-ñaggi xol ak njàqare ak it xool ab kaamil ak xool kanami nit ñu baax ñi yooyu yëpp day taxa mucc ci njàqare ñagg-ñaggi xol wa an yaqoola ak muy wax ida asbaxa ndéem xëy na wa am saa ak bu gontee ni allahumma yow buur bi indiya naka man amodu danaa muslu di ko ci yow minal hammi ci ñagg-ñaggi xol wala xasani ak njàqare waa ahondu te mi muslu jóge ci yow minal xaj si ci lot wal kësali ak tàyyeel waa ahondu te mi muslu jóge ci yow minal jubli ci ragal wal buxli ak nay ba tey bokk na ci liy dàq ñekk ña di xol ak njàqare suba ngoon gu ne nga wax ñaan gi tàmbali allahuma inni ahondu bika minal hammi ba ci wa qahri rijaal mooy yàlla maa ngi lay ñaan nga musul ma ci ñagg-jaggi xol ak njàqare musul ci tëli ak tàyyeel musal ma it ci nay ak ragal musal ma ci yanu bor bu ma ëpp doole musal ma it ci góor ñi di ma not ba féete leen suuf di ma awale fu ma gën a lut wa an yaqool amuy wax wa an yaqoola juróom-yaari yoon allahu yàlla rabbi mooy sama boroom wala wala ushriku te duma bokkaale bii ak moom shay'an dara ba tey bokk na ci li dàq ñaggi-ñaggi xol ak njàqare suba ngoon gu nga wax allahu rabbi wala ushriku bihi shay'an juróom-ñaari yoon wa yuksiru tamit baril min qawli bismillahi rrahmani rrahim wala xawla wala quwata al aliyil ak teg ca wala malja déet benn wéerukaay minallahi ci yàlla ila ilayhi ndare jëm ci moom yàlla teg ca waxas bu nallaahu wa ni'mal wakiil ba tey ku bëgg yàlla musal la ci ñag-ñagi xol ak del bari la wax bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la malja'a minallahi illa ilayhi hasbunallahu wa ni'mal wakiil wayu kasiru tamuy baril minal istixfaari ci sàkku njéggal wayu karriruhu tem koy baamu wal fikru ak xalaat fii man ci koo xam ni huwa moom aqallu mooy yées minhu ci moom maalan ci alal wa axshanu te moo gën a ñagas chinatan ci waajtaay wa jamaalan ak cibtaar wa anzamu te moo gën a màgg balaa an cib nattu wala yut bihu te du tofal nazarahoo xoolam ba ilal mutana'imina jëm ci way xéewlu ña wa maag la nga xam ne mottexoo xéewaleef na leen ko min sinatil xayaati ci taaru àdduna bi ak duniyaa bi gën a suufe moom mooy dund àdduna rek ak gi gën a suufe alfaaniyati gi aji jeex bokk na ci li tax yàlla musal la ci ñagg-ñagg xol ak njàqare ngay baril sàkku njëggal ci moom astaxfirullah rabbi xfir lii ak noo ko mën di waxee di ko wax ko waxaat rek te itam di xalaat ki nga xam ne yaa ko tane te bañ di xool ka nga xam ne moo la tane da ngay xool daal bu dee ci wàllu taar wala bu dee ci wàllu alal wala bu dee ci wàllu wër ak yooyu ngay xool ka nga xam ne yaa ko tane te bañ a xool ka nga xam ne moo la tane rawante na ñi nga xam ne yàlla da na may ñu am wër am dund gu yaatu am alal ju bare bari boo dee xool lañu am teewu amoo ko man naa am nga xarab yàlla kon de kon de seet ka nga tane te bañ seet ka la tane wal yaqul nay wax ku la yawmin ci bépp bis allahumma yow buur bi anaaman xabduka maay sab jaam wabun xabdika tey doomi sa jaam bu góor wabun amatika tey doomi sa jaam bu jigéen fii xabdatika maa ngi nekk ci sëg nëpp naasiyat yi sama kawaru jubb wala sama cembaan bi yeddi nekk na sa loxo maadin aji wéy la fiye ci man xokkumu ko sa àtte xadulun lu maandu la fiye ci man xadaawu ko sab àtte asaluka maa ngi lay ñaan bi ku lismin ci yépp turu waxu ni moom làkk ñel na la sàmmayta bopp tudde nga bi ci moom naf sa ko sa bopp aw ansal taxoo wala nga wàcce ko fii kitaabi ko ci sa téere bi aw àllamtahu wala nga jàngal ko ahadan kenn min xalqika ci say mindeef aw istasarta wala nga jagoo bi ci moom fii ilmil xaybi ci xam-xamu kumpa xindaka fa yow maa ngi lay ñaan an taj xala nga def alquraan alquraan alazima mi aji màgg nuura sadri muy sama leerug dënn wa rabiha qalbi tey sama lool yëpp xol wa jalaa xusni tey wuñikaayu sama njàqare maanaam daal lay setal sama njàq